salaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi bonjour et bienvenue à tout le monde bonjour et bienvenue à toutes et à tous à tout un chacun aujourd'hui nous ne sommes que deux Abdoulaye Ly et moi sommes sur le plateau pour partager avec vous des informations concernant les nouvelles avancées de la technologie et tout ce qui gravite autour de ça mais à cela s'ajoute qui quelques règles que nous allons euh, pas oublier de mentionner dans cette émission pour Si vous faites partie de la grande communauté chrétienne du Sénégal, on vous souhaite un bon, un saint temps de na leen yàlla defal jàmm ci koor gi ngeen dugg. amiin waay yàlla na koor gi sedd lool fi yéen. waaw li ngeen ci jublu mooy jàmm ci yàlla yàlla na ko yàlla nangu. li ngeen ci ñaan yàlla na ko yàlla def mu nekk jàmm wu ñu tuur muy xéewal. waaw wala ngaan ci askanu Sénégal sunu gaal. amiin yaa rabbi Abdoulaye maa ngi lay ziar. Alaaji Papa Sidi Fall maa ngi lay delloo di am mbégte ak contentement. partagé ak yow plateau bi comme tout les alarba donc di la feelu ci li nga xamante ni moom nga souhaité suñu mbokk chrétien yi maanaam bon temps de carême wala saint temps de carême xaw ma nu ngeen koy waxee noonu. Mhm. leen ñaanal yàlla nangu leen li nga xamante ni moom mooy euh, seen koor gi. di ñaan aussi mu sedd bu ñu paree ñu jox ñu lenge yi ñun itam dañuy duggante kay dañuy sax duggante fàtte naa ne chevauchement faaw mu <laughs> am mënul ñàkk. dañuy duggante exactement. wallaay wallaay donc di wax ne tey moom xam na entretien laay def ak kii di Alaaji Papa Sidi Fall ñoo nar a waxtaanee mbir yu bëree bëri tey moom on aura le temps vraiment de parler de beaucoup de choses. Mm. d'entrer dans les détails et ba ñu dagguñu daal. waaw mercredi en général dañuy faral di dalal xale yooyu nga xam ne ñoom ñooy xale yu xereñ yi. Mm. tey nag dañ ci amoon kuñ ci tànnoon waroon ko dalal. Euh, malheureusement mu ne moom dinaa moom bi moo yàqu <laughs> nan ko muñal ba semaine prochaine donc c'est pa grave a non euh, partie de du, c'est les aléas de la télé kii oui. mooy monsieur EI IA euh, béggee nag de la part de Mansour Monen Juktunum Diallo Beydi Sow qui dit bonjour ziar na leen bu baax ñu ngi leen di ziar toutes ces personnes qui nous regardent sur le digital alors Un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'actualité au Sénégal, c'est mm. quoi C'est le khalife général des Tidjane. Mm. yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. wér wér wér wér wér wér maam guddal fan. mooy Serigne Babacar Sy Mansour mi génn. Mm-hmm. Euh, démb tey jokkale kàddoom ci penc mi. Mm-hmm. moom khalife général des Tidjane mu ngi sàkku ci ñi seq langu politique gi ñu wax jàmm def ko jëf ko ngir Sénégal jàmm ko jik leneen lu dul jàmm xaju fi. yal na yàlla def ay kàddoom dugg ci noppi ñi ko war a dégg. amiin yaa rabbal ONU ñoom dañoo jox Sénégal ndigal. Mhm. maanaam ne nañ ubbi ay enquêtes yu gaaw enquêtes yu leer ci ñett ñi ñu boom ci manifestation yu aljuma yi weesu ñu xam ñi ko def. Mhm. teg leen loxo. alkaati yi nga xam ne takk der yi nga xam ne danoo yoroon ay pistolet def ci balle boobu ngeen waajal seen bopp dina am responsable moom de toute façon. ta ñàkk. voilà Pape Omar Keita mu nga Abidjan naan Abidjan est doux en tout cas. mais moom lii chaque jour bu répété ko si suñu si suñu commentaire yi. Pape Pape Pape Omar fatt nga ñu. lu xew foofu Omar toogal ak sa acceke. ku la uuf ndax yow Côte d'Ivoirien ngay gën a nuroog que sénégalais. Oh, dëgg waaw kay franchement. comme sañ nga ko yow sañ nga ko koo wax. Cheikh na Ndiaye ñu ngi lay siyaar ñun tamit alors l'autre actualité c'est Karim Wade qui dit ah man de maa ngi door yëg ne. Ousmane Sonko ak. Euh, Macky Macky Sall dañuy jalo kër moom Sall moom ak Ousmane Sonko. gi Marius Sagna dafa am lu mu ci wax. ni président de la république mu ngi ut a jokkoo Macky Sall ngir xool nu mu dàqee élection yi ba jëmmi jamono. Alioune Tine it mu ngi yëglu te naan fii ak fan Ousmane Sonko daan ko wàcc ñaari wax yooyu. dafa waroo gis-gis lool ak jegeñaale yu Ousmane Sonko yi Ousmane xëy weddi ko ak euh, waa Yewwi Askan Wi ndax ñoom ci seen diggin dañu jàpp ne mhm. nañu wàcc Ousmane Sonko waaw waaye bugguñu daray dendale wala jegele luy mhm. indi dialogue mhm. maanaam oui à la libération de Ousmane Sonko mais non au dialogue Pape Omar day dellu siwaat àllarba bii di ñëw te nga ñaan nationalité rek. wala résidence bi ñëwaat ci plateau bi. ah waaw loolu di xéwal son comeback. comme dem nga di waar ñu dooñu. <laughs> ñëwal fii rek. Amdy Mignon il n'est pas sérieux moom ak euh, Sophia Thiam ak Habib MVP. Hmm. yal na leen sama àq topp. luñ la def. xanaa dem bu toog ci plateau bi di fa wax samay wax yoo xam ne. samay wax yi bopp la waaye dañ koo dañ koo dañ koo njar. alaaj lu lu sabab wax ji. Hmm, ma ni raxu. encore plus yaa ko téye soo koy bàyyi muy naaw ñoom ñu wax ko raxu raxu jàpp ne man damaa bëgg a ñëw ci seen émission boobu na sa xel dal jàllu jéeri na sa xel dal dal ñëwuma ñëwuma ñëwuma après plus du cent franc. lan la ñu lu ñu wax raxu. <laughs> loolu man loolu xaw ma ko sax. ala ji. <laughs> Louga nag dafa am musiba gu fa am. nga benn xale bu jigéen moo dugg ci benn magasin wu benn commerçant di fa sàcc. jigéen waaw. ñu jàpp ko mu jam commerçant ba. mu paaka ca ca ca ca biir ba. subhanallah rang. ñu yóbbu xale bu jigéen bi police mu ne commercant bi da ko doon violé. te caméra de surveillance yaa nga fa woon. moo loolu aussi ay yeneen fitna la xeetu. waa léegi léegi bu fa caméra bi nekkul woon nag. mën na koo tuumaal. ñu tëj waa ji dix yàlla. na mu tuddati. c'est incroyable. Euh, euh, nan la tuddati euh, kon président Abdou Diouf démb. Mhm. journal yi dañoo xëyoon di ñu yónnee ay waxam. di ñu yëgal ne moom ak président Abdoulaye wadd dañoo bëgg waa réew mi dal. Mhm. te waxtaan ci dialogue bi. bu ko defee ñu waajal élection 15 décembre 2024 yi. Mhm. président Abdou Diouf kon ci nigi ni démb gi la génn communiqué dal ne conseil constitutionnel bi mu fi sàkkoon teg ko fi. waa ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité mhm. xool nu mbir yi di doxee ak nu muy tëddee waaw Crépin jaata waa kaaf daan nan ko maanaam ndax la mu waxoon aj nañ ko ab diir ndax la mu waxoon ca arbitrage ba arbitre ba moom moom ak ña mu àndaloon ak ñu nekkoon ca waar ba yëpp ñu lañ lañ lañ fob tuuri mbalit ci ñetti at yi di ñëw duñ bokk ci dara lu. Euh, kaaf <coughs> paradoxal. Mhm. sanctionné nga nangu ne arbitre bi lu mu def tegu ko ci yoon. Mhm. ki taxaw joxoñ ne arbitre bi lu mu def ci yoon aussi nga sanctionné ko. mais xam nga dans ces cas de figure les gens ils en nan la tuddati en en alerte. wala dañuy bëgg avertir les autres en leur disant ok on a constaté comme vous. donc vous ne devez pas prendre la parole publiquement pour décrier sur la bon marche. waroo defal sa bopp justice quoi. voilà waroo defal sa bopp justice. ndaam tooñ nañ la. Hmm. waaye waroo rey. <laughs> mais am nga droit wax. am nga droit wax mais seen droit nag ñoom dañ koy restreindre xaw ñaare. mu nekk nii am naa ci sa xaritu suur boo xam ne chaque suur mu jàmbat ma coono yi réew mi di dund. waaye ne ma dafa am gàllankoor yu fasantikoo rek yu ko tënk yoo xam ne mënut ta wax publiquement. fësal ko waaw waaw ñu bari de looloo leen tënk. ma ne ko muñal rek. Hmm. yàlla jeexut. Hmm. mais bis boo demee ba ba ba say contrat comme contrat lu ñuy utal ab diir la. looy ah. bañ mu yegg si bu ko utal ab. waaw loolu de daal moo xew ci réew mi agum. loolu de la wolof wax. ñu ne nañ ko càmbar waa aar suñu élection nag ñoom nee nañ. ndéem démb. Hmm. préfet bu dakaar dàq na seen. Euh, marche. silencieuse maanaam. marche bi ñu bëggoon a def. waaw. ndéem euh, dàq na ko dañuy jéem a ñoom xool naka la ñuy def. Mhm. ba amatal amalaat beneen jotaay boo xam ne dañ ci naqarlu lu ñu tuxal élection yi. Mhm. gaaw yéen bokk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février wi ñu ne. Mhm. weeru février bi nag raar na ci mu nekk at mu nekk anne année bissextile. maanaam ku juddu woon 29 <laughs> février tey la sa anniversaire. moom maanaam ren weer wi ñu génn doo ko génn te anniversaire. fàttewoo la nga jàngoon de. déedéet. waaw kon wax rek ay ree jàpp <laughs> année bisextile. année quatre matchs de suspension aux accusations de corruption à la CAF. et deux en sursis. voilà et deux en sursis. Ah. donc euh, du coup. Euh, match CAF. match CAF match bu mm. CAF organisé. mais bu ko CAF organisé wu ñun ñu def suñu match amical. waa kay match bitim réew yi tamit bokk ci. déedéet loolu seen yoon da cee nekk kaaf daa géré bitim réew kaaf kay na géré kaaf gi rek seq génn mu mu mu kes la <laughs> voilà lii daal moom moo nekk lees mën a jàpp ci tënk ci euh, mbiri xibaar yi Moussa ci am dokkatu internet ba delloowaat nanu ko Moussa yàlla na la sunu àq toog Moussa fatt nga nu Moussa sonal nga nu Moussa lëjël nga ci Moussa Moussa doo yàlla doo yonentu doo walliwu doo alxuraan Moussa ab ministre nga dañ laa dénk li nga yor moomoo ko. est-ce que Moussa jàppewul boppam ministre de l'intérieur ak ministre de la justice. barki rasulilaay Moussa man balaa sama xol bee gën a bineegaru rek. Moussa jàpp internet bi. mel ne pas roof rop bi mu nekkoon bu ko neexee mu roof bu ko neexee mu roof. moom nga dégg yow groupe électrogène. wallaay teg teg. Moussa yow musa Moussa Moussa egg nga fu nu yàlla yëggut mu ne. non bi mu coupé internet bi kenn deewul. internet bi mooy rey nit. internet reyul kenn. xam nga loolu c'est xam nga nit yor pistolet def ci bal vrai tiire ko nit mu daanu deret jay rogalaat. nga ne kenn del nga naan. da nga naan kay relayer wuñ information. maanaam information bi jàll. te nit ñi dañu soxla information on est dans un monde où on parle d'internet on parle de digital regarde Moussa il y a des avancées dans l'univers de la technologie. et qui ne cessent de prendre euh, des mesures ampleur. extraordinaires d'ampleur. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va commencer avec ce sujet-là. mais Alaaji avant ngay dugg ci loolu Moussa il faut ñu xamal ko. perte. gi affaire douze milliards par coupure d' internet. ñu nataalee ko ci yàngoo du daw ñeneen ñi du ñu daw transfert d' argent yi ñenn baana baana yi koy jaay yor seen téléphone ci mbedd yi duñ ko mën a utiliser. ma ne la démb dafa am. ñaata nit ma war ko yónnee cinquante mille francs. mais mënu ko retirer. man ka taxaw jàkkaarloog moom mu naan ma yónnee ma xaalis bi damay dem ma naan ko collection bi mooy doxul. doxul. démb 14 heures laa génn 2S fii. Mhm. di ñibbi sama kër. fii ak Colobane defuma ko une minute. waaw. ndax dëkk bi ne selew lew lew lew lew c'est normal parce que loo xam fi ngay tax ba pare par exemple man mi nga xamante ni keroog am na bërëb boo xam ne dem naa fa cinq fois bañ coupé internet mënatuma faa dem parce que damay utiliser tout le temps localisation bi pour wan la dépendance bi ñu am actuellement sur internet. ba pare dagg démocratie ci loolu la commencé. Hmm, maanaam tu ne t'informes pas. tu ne pas c'est-à-dire tu prives les gens de l'information. selon la convention de Genève l'information est un droit. mais absolu. kii nous le pique nous pique notre droit. et puis ouais. internet du loo xamante ni tamit comme robine la rek da ngay tëj di tëj nu mu la neexee. qu'on la vérité c'est comme les comme virement bancaire yi nga xëy ne viré wu c'est exactement la même chose parce que. quatre-vingt-dix-huit pour cent des sénégalais utilisent les données mobiles ouvriers yi moom la ñuy wonee liggéey yeeg seen patron yi moom la ñuy jokkoonlante ak seen patron yi ñenn ñi moom la ñuy wax ak seen jabar yi nekk à l'étranger seen jëkkër yi nekk à l'étranger agence yi ci nekk lañ xamul agence moom moo woo ma on t'a envoyé un mail fais-nous un retour vite fait par rapport à l'offre mat man may jànnaxe da ngay jànnaxe may woo naan ma on attend que vous monsieur Fall ma naan leen wifi laay wër leen ma ma gis wifi xam nga loolu aussi. Moussa te ñun développé wu ñu développé bu Moussa Moussa ñun lan lañ la def Moussa ñun Moussa tojuñu taaluñu yàquñu waxuñu musiba defuñu ko Moussa loolu fukki nit a koy def. te internet sax taxul ñu toj wala ñu bañ a toj. te ñun dix huit millions lañ douze millions yëpp dañuy collecté Moussa nga xëy rek nan tàpp suñu internet bi. Ouskana nee na comprendre wul euh, information wu Crépin Diatta bi. kaaf ñoo suspendre Crépin Diatta. ci mm. quatre matchs. dañ ko aj dañ ko aj quatre matchs yoo xam ne du ko football. Mhm. yu kaaf organisé waxuma ay dëkkam nag. voilà Moussa Barki boo jëlee billaahi bu nu jàkkaarloo woon balaa nuy waxtaan wala balaa nuy nuyu dañuy am douze minute de raak yu dëgër këpp. Moussa daal xam naa ne minute bu nekk ñu symboliser ko milliards yi ñuy ñàkkloo saa yoo daggee internet mobile bi. bàyyi li ngay def man nag il faut mu am ay rebelle ci opérateur yi ah. ah. commencé bu la nee daggal nga ne ko dagguma. dagguma. wala wëral kër ñëpp nga ne leen déconnecté am ay perte. ah mais c'est c'est c'est 12 milliards de perdus c'est ce que disent les spécialistes et puis en croire que c'est internet mooy indi instabilité c'est mal connaître liñ la jox non mais franchement je pense c'est mal connaître liñ la jox couper des signaux de télé dagg ay internet xool ab sa aan bu Seneweb moom la ñu waroon a invité tey hmm. mais malheureusement ab sa aan dafa xëy dem l'hôpital waaw xool lor lor yi ñu ko lor ci yaramam waaw journaliste tubaab ba gis nga niñ ko def ni ko ni ko force de l'ordre yi traité dafa ñëw mel na kuy sëfal alkaati bi ña ña ña ña ña ñu gis ko mu tàpp ko ci mbagg ne ko demal demal def sa liggéey journaliste Sénégal yi bu ñu yëngoo ñu jàpp duma loolu lan la yéegal la ci seen oto boobu loolu lan la toroxal gi ngeen jël di ko man maa dégg benn sëriñ démb ma ne ko billaahi kii moo xam Sénégal mhm, ndax alkaati yi du ñëpp encore une fois am na ci ñoo xam ne nit ñu nite leen nit ñu baax lañ Mhm. nit ñu am ay ëdëb maanaam am ay teggin waaye léeg-léeg ñuy jànkoonteeg alkaati yoo xam ne mhm. seen xar kanam rek danga ci gis yéene toroxal la ah, boo defee lu baax boo jubee boo nekkee ciw yoon danga leen di gis sa fit mi ne rél rél te loolu musiba naaru loolu baaxul man damaa dem fii benn dëkku jàmbur mhm. eh, awma collection parce que damay door a yegsi ci dëkk bi ne génn ne damay dem wëri Starbucks ba di pour jënd café yoon wi ma jaar bi may ñibbi xamuma ko mais xam naa adresse bi ma jëm. Mhm. adresse bi góorgóorlu naa ba jàpp ne xaw ma euh, mille cinq cent douze la quinze xaw ma douze. quinze douze waaw. bi ma gisee oto alkaati bi wax ko alkaati bi dañu ma dugal ci wata bi ma dugg ci wata ba mu yóbbu ma ba fa ma jëm. ne ma bonne journée monsieur. man ne ko merci beaucoup yàlla nga gudd fan. ma dugg di sanab ne ko mën naa sanab mu ne ma sanabal. <laughs> ma naan alkaati yi ñoo baax ñoo gore. mais dama ni lool du du du suñu ay. alkaati xalaat fii. mais fii am na ci ñoo xam ne. ak kay dèjà wax dëgg yàlla. am na alkaati yu baax. Mm. am na ñu yiwin am na ñu gore am na ñu xam ak doomu aadama mais am na ñoo xam ne seen objectif première mooy toroxal la. yelleef xamuñu ci toroxal doomu aadama maanaam humiliation biñ lay humilier dafa mel ne ay moment de plaisir lañ gis nga trop de pouvoir. excès de zèle la excès de zèle baaxul. Mm, mm, wallaahi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne. ñu baax lañ wallahi da nga leen di déglu ñu wax rek nga xam ne ñu nite leen bari na bari na bari na ah, waaye yow koo xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam nga jàpp nit toroxal ko loolu baaxut alkaati yi def loolu nanu nanu nanu nanu nanu sagal deru alkaati yeneen yi nga xam ne parce que boo jëlee téeméeri alkaati mhm. day mel ne ñeent ñoo ci mel noonu waaw quatre-vingt-seize yëpp dañuy jub mais ñeent ñii day tax ñu àtte waale quatre-vingt-seize yëpp ci ci sac benn sac tout le monde xoolal ki mbéjoon ils font leur boulot voilà faut pas les blâmer yow Pape Sidi Sagnoo def luy violer loi 2STV yi ton patron sanctionné la yow li ñuy wax ak li ngay wax bokkut. voilà il faut passer l'éponge. Ouzi di Ousmane est-ce que mën nga may jàmm yow <laughs> yow ñun ñu ngi fii yaa nga fële yow qui te parle de violer nous on te parle d'humiliation on te de dignité humaine toi tu parles de violer. yow koo xam ne. plaisir bi muy am si àddunaam yëpp mooy toroxal nit loolu baaxul lañ wax on te parle de maintien de l'ordre maintien maanaam koo xam ne boo ko gisee sa xel dafa war a dal waaw waroo koo gis di tiit merci le rapport avec le takk der et les sénégalais doit changer maanaam dañ leen a war a gis ñun am confiance kontaan ci gis leen parce que on est sur que notre sécurité est assurée daw taxaw ci wetam boo gisee lu ne tel voilà pas moo yow nga koy daw mais koo xam ne programme am yëpp mooy xool nu mu la toroxalee ak nu mu la humilier loolu laa ni am na takk der yu koy def nan ko wàcc ndax dañuy gàkkal yeneen takk der yi des ah, yëpp wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne boo génnee fii dañuy dajeeg yow xool la fuñ fuñ ñaaral nan la waaye yow na nekk télé bi di ñu wax naa naa na fekk waxoo ko moom bu fekkee melul noonu waxoo ko de qui se sent moom vaut se mouche malheureusement ah, alors de la technologie on va parler de am na lu Apple génne ay loo xam ne moom wax dëgg yàlla bi airport di door a génn laa koy fàttaliku ndax airport bi mi door a génn xaw ma bultuf bu njëkk ba. mooy airport ya bultuf mooy avant xam nga avant airport yi y avait les la là. waaw waaw mooy ñu doon lonk nii. waa ñi doon lonk ci ndox mi rek. voilà avant loolu da ngay gis nit kuy dox di wax gisoo ko mu téye téléphone da nga naan waaw kii moom xanaa daa dof daa dof yàlla bu mu doon ibaadu bu muuru. dafa mel ne Apple Vision Pro. Ah. bi génn waa moom Apple Vision Pro moom lan la. mais alxaaji <clears throat> Apple Vision Pro c'est-à-dire xam nga technologie comme tu la si bien introduit. d' nee na ndax tey amul velo bu ñuy présenté. non tey amul vélo tey tey lii waaw li ngay gis nii ci ci télé bi lii la ñuy présenté <laughs> nit ñi takk seeni masque mel ni ñu wérul gën nga sa tu vois tu sais bien introduire macha allah dafa am lu ñuy woowee ay révolution li nga xam day ñëw révolutionner air cest à nouvelle air xam nga sànq yaa ngi wax air Bluetooth. jamono ji nga xamante ni dañ doon tàqalikook écouteurs yi nga xamante ni da nga ko doon branché mu am fil nit ki da doon yor li nga xamante ni moom mooy bul tuufam di wax nit ñi duñu comprendre comment ça fonctionne léegi koo gis mu ngeek airport léegi boo gisatee nit ci mbedd muy dox di wax da ngay comprendre carrément que nit ki kat peut-être que daa takk ay airport am moo tax mu nga xamante ni moom mooy wax noonu lañ nar a demee ba di utiliser yi nga xamante ni dañ koy saañ suñu biir nopp yi muy jaar ci suñu bëñ yi di wax comprendre nga léegi Apple Vision Pro bi nag c'est une révolution extraordinaire c'est la plus belle et grande des parce que casque la de réalité mixte. maanaam lii da nga koy takk. waaw di gis ay télé yu bari. yow yaa koy configurer nu mu la neexee. c'est-à-dire l'objectif c'est de faire disparaître les écrans physiques. maanaam ah. écran yii nii ñu jaakaar maanaam suñu téléphone yi dafa nar retour yi xobi daaf. waaw ak yii ne sa ginnaaw yii yëpp. ci gàttal yooyu lañu bëggatul mu am léegi lépp luy écran lépp luy téléphone portable lépp luy seetaan film cinéma loolu yëpp dañ ko bëgg a jël tënk ko ci benn affaire bi nga xamante ni da nga koy sol da koy takk da nga kaa takk waaw lii boo ko takkee ba bëgg miir nag nooy def looloo tax nag ma ne la moom mooy casque de réalité mixte parce que avant on avait des casques de réalité virtuelle on avait des casques de réalité augmentée casque de réalité virtuelle amoon nañ ci ay temps mooy yooyu ñu doon jënd fii dugal suñu téléphone ci biir di seetaan ay film yooyu boo ko takkaan nit mun na ñëw ba tiim la nii di la jàm doo ko gis mun nga dox ba mbëkk parce que da nga ko doon takk di jouer doo xam foo jëm n'est-ce pas mais lii dañ ko def de telle sort que da ngay gis alaaji da ngay gis maanaam li nekk sa dama lay gis di gis écran bi moom ngay gis nii gis nga waa ji mu ngi gis néegam gën nga mu ngi gis nii lekk bi mu ngi jël lekk bi parce que mu ngi koy gis en même temps mu ngi gis li nga xamante ni moom mooy nombre d'écran yu mu ti vois que c'est extraordinaire léegi lii la ñuy wax casque de réalité mixte c'est-à-dire Apple dafa bett ñëpp ci lii nii parce que c'est une bi nga xamante nit ñi xamuñu woon dina am te deviner wuñ ko moo tax ba mu génnee dafa def benn engouement bu extraordinaire xam nga daaw lañ ko indi woon fi man bañ ko doon présenter maa ngi naan est-ce que lii sax ils réussir à le te technologie bi ci lii ci gën a garaaw ci biir sax ñoom présenter wuñ ko léegi dangay gis nit nekk biir États-Unis xoola takk casque bi di dox ci mbedd bi di jéggi ay tali fan yee passé sax jàpp nañ ci nit ki nga xamante ni daf koo takk di dawal oto. ñu jàpp ko. waaw policier jàpp ko ne ko mais attends lii c'est interdit mënoo takk casque bi di dawal oto mu ne leen lii casque de réalité mixte la mun naa dawal di seetaan en même temps di gis li nga xamante ni moom mooy tali bi. doolu daa wóorul sax. da dafa c'est-à-dire lu xeet xalaatu ko sax mais xam nga américain rek am na ñi nga xamante ni ñu ngi koy takk. am na video xam naa après Grégoire dina ko gis da ngay gis léegi comme ni ñu doon toogee ci restaurant yi téye suñu téléphone yi di waxtaan. di ko utiliser en même temps da gis nit ñi toog ci restaurant yi ku nekk takk li nga xamante ni moom mooy sa casque di def nii parce que ay geste moom mooy euh, commander li nga xamante ni moom mooy masque bi. Hmm? tu nii ngay def di xëcc et cetera léegi masque bi lu bi lu si neex mooy dafay. maanaam nii ngay def. nii mu ñëw nga def nii mu avancé nga def nii mu yéeg nga def nii mu wàcc tu vois boo bëggaatee menu bi nga def nii tu nii nii. parce que dafa am ay capteurs yu nekk ci suuf yu bari léegi capteurs yooyu moom mooy détecter say position loxo yi. nii rek ngay def nii nga def menu bi ubbeeku. loolu mbaa jàmm la yow. nga ubbi nga te dof nga def nii mu dem. nga defaat ni mu dem Gré Grégoire génneel ñu euh, image yu li nga xamante ni moom mooy illustra euh, illustration yooyu léegi nag. <laughs> Grégoire ak Alain dañoo woor tey. <coughs> dañoo woor dañuy wooraat. <laughs> vendredi. vendredi dernier jour ba. <laughs> la ñuy pour mercredi de cendre vendredi saint jeex na. ah non loolu moom teguñu ko fenn léegi gis nga waa ji moom il a configuré de telle sorte à avoir cinq écrans devant lui tu peux avoir tey jii si sa biir kër mun nga configurer ci salle bi nga def fa benn écran cest à boo doxee ba yegg ci salle bi da ngay gis benn écran mooy sa télé nga dem ci waañ bi da gis benn écran YouTube bu lay permettre tey boo buggee togg. parce que avant bu fekkoon dangay ngay jàng toog da doon teg livre de recette wala nga teg li nga xamante ni moom mooy sa ordinateur <coughs> di seetaan li nga xamante ni moom nga bëgg a togg di ko def léegi nag ak casque de réalité bi augmenté bi da lay projetel li nga xamante ni moom mooy recette cuisine bi nga koy seetaan en même temps di mën a togg parce que yaa ngi gis say loxo yaa ngi gis fruits yi yaa ngi gis légumes yi et cetera boo tourner à gauche mu indi la beneen écran bi nga xamante yaa ngi seetaan match kan kaan moom bàyyil di wax kaan man seetaanuma kaan yow. looy seetaan Ligue des champions. kaan moom du cent franc kaan baaxul. <laughs> ngay seetaan xaraam comme kii ngay seetaan li nga xamante ni moom mooy basketball. tu vois nga tourné fee nekk en réunion Meet et Zoom. suñu kat yu jigéen ñi si ñu leen di dóor rek. non ñooñu ñooñu nag man laa bëggul dégg seen ay wax parce que américain ni leen def keroog c'était c'était c'était c'était. ah américain yi ñoom ñoo ñoom yàlla américain dóor ma moom a gënal. waa Zimbabwe dóor ma. non Zimbabwe Zimbabwe moom munul munul munul dóor Sénégal munul dóor ñi nga xamante ni moom mooy Sénégal léegi aussi casque bi mun na la permettre ngay def sport comme Nintendo Wii tu te rappelles. mooy Nintendo yooyu nga doon yor genre. baguette bokk su nii. waaw di daw léegi casque bi dafa intégré aussi genre affaire yooyu tu as possibilité nga dugg ci. casque bi boo ko yoree bu ñu lay woo da nga ko gis. waa casque bi sa téléphone la lay projeté. sa téléphone la lay projeté projeté la sa ordinateur tey jii nii lu ci gën a neex mooy su ma la defoon appel appel vidéo comme FaceTime man ak yow dama lay gis physiquement. physiquement ma nga taxaw nii. nga taxaw mooy wax ak yow. ah léeg-léeg ma taraxlaayu aussi di woote de ma sol si leen maa ci kaw taraxlaayu fi suuf léegi loo ma loo ma mën a gisee noonu. defar dànk. da lay créer da lay na la sa rest corps bi lay créer nga taxaw yow. ah loolu kay la waaye du du du doo bëgg def rek def ko abal mi na doon xam fi muy yem. ci <laughs> waaw loolu da koy def beneen bi soxlaatoo ngay dem cinéma parce que comme par exemple man film box office yi bu génnee su ma demee cinéma dama koy seetaan en mode 3D. parce que mode 3 am na lunettes yu ñu lay jox cinéma lunettes yooyu ñu lay jox man damaa mujjee jënd lunettes yi bàyyi ko ba ko sama oto saa yu ma demee di ko di ko di ko sol léegi ak Apple bii. soxlaatul ngay dem cinéma sa kër ngay seetaane des films en 3D te ñoom seen trois d moo gën a époustouflant moo gën dàq sax 3D yi nga xamante ni moom moo nekk cinéma parce que yi c'est cent pour cent immersif te réalité mix bi tu as la possibilité Pape Sidi Fall ak benn bouton couronne bu nekk ci kaw ngay yokk wala ngay wàññ cest dire su ma neexee nii ak casque bi nii may seetaan film bi di la gis en même temps su ma neexee ma def de telle sorte que yow dootuma la gis film bi rek laa gis à travers juste benn bouton couronne booy def nii hmm. su ma ko yokkee dinaa la gis su ma defee nii ma am cent pour cent film bi donc tu as la possibilité de d'augmenter la réalité augmentée wala d'augmenter la réalité réelle xaw ma réalité réelle si ça se dit hmm. waa léegi. Mhm. Euh, man damay laaj de. Mhm. ku ci mel ne man nga xam ne da ngaa mayob. ay weeri kii nga su yor ay weeri ordonnance. waaw waaw léegi. tu peux avec des lentilles. maanaam boo koy jënd faaw mu ànd ak luy mën a tax yow boo takkuli lunette it nga mën a seetaan. wala mën nga koo takk ak ay lunette. ah ah <clears throat> c'est-à-dire y a des ak même casque yu yàgg yi ñu doon utiliser VR box yi am na noo doon régler lentille bi. positionnement bi day régler carrément sa bu dee par exemple yow da nga am déséquilibre entre tes deux tes deux yeux là. waaw bii gi gauche lay gis bii droite. waaw am nga possibilité régler ko de telle sorte que da <coughs> ajuste ajuster sa vision bi ba mu équilibré loolu c'est prévu parce que ils savent que par exemple la plupart des geeks wala des informaticiens wala ñi nga xamante ils sont accros à la nouvelle technologie ñu si bëri seen ay bët baaxu mm-hmm. moo tax loolu mooy première chose bi nga xamante ni dañ ciy bàyyi xel ñi nga xamante ils sont adeptes de méditation toog par exemple bëgg a changer air mënuñu dem jàkkaarloo géej gi bëgg def yoga ils ont la possibilité de faire des méditation des séances de détente toog teg ay musique mu leen di yóbbu ci ay environnement ci ay montagnes tu vois possibilité de s'évader tu léegi nag kaski bi dafa commencé indi ay dérive ay jéye waaw mooy yortoon naa ko kay commencé lii de du yëfi nit moom commencé na indi ay jéye parce que nit ñi léegi dañoo maanaam masix dajal mi ñu doon eh, digle ci l'islam rek moo dellu si waat ni merci beaucoup man noon mën noon koo xaymaa noonu du ma ni moom la nag ndax xaw ma kañ lay ñëw waajooj xaw ma ñëw na ba pare xaw ma day waaj a ñëw lii daal nuru na dajal borom benn bët bi waaw sori wu ko de parce que xam nga dañ doon wax rek dañ doon wax smartphone yi dañoo commencé accro ci smartphone yi parce que léegi nit ñi ko gis mu ngi toog nii yor téléphone am di waxtaan ak mais lii ça sera pire parce que bu ñu ba ñu takk casque ak gën nga casque bi nu mu toll. mbaa saa bu télécom gisagu ko. ah yàlla bu mu ko gis. ko <laughs> gisee mu dem siin commandé ko ci naan arnaque baa ngi nii. dem ci piscine bi ci <laughs> Massa Gala il me fait rire. Non, il est il est drôle. Qu'est-ce <laughs> que tu des personnes se promener avec ça. mais li rafetul. loolu léegi nekk gaa yi nekk ci métro yi takk ko. est-ce que jëmuñ ci ay lunettes yoo xam ne day day nekk lunette normale nii. waaye day nekk réalité augmentée xaw ma. Ah, waaw y avait y avait un projet de de Google tu te rappelles Google Glass. Mhm. seen espèce de lunette yooyu nga doon takk. mu lay woon géolocalisation bi et cetera nee naa dinañ dem dinañ mel ni waa Dragon Ball Z sa lunette yi ngay tàkk ma romb la nga ne nii Abdoulaye lii trente cinq ans habite ici et cetera et cetera bu ñu demee ba adduna bi toll foofu moom nañ jàpp ne rek adduna bi mu ngi waajatu kii ngay gis moom mooy premier client bu jënd Apple Vision Pro bi donc gis nga ñëpp ñu ngi koy tàccu li ci gën a doy waar mooy c'est même pas encore disponible en France. kon de xalaatu guñ ko ñun. waaw mais am na ñu koy commandé. donc déjà premier jour bu mu ison ils lii man deux cent mille exemplaires ci benn fan. waaw non mais attends beneen question bi mooy. waa lii moom nooy def ba déglu xanaa day ànd ak ay ay scooters yooyu. def sa nopp non affaire bi da koy projeté directement ci sa noppi. voilà lii da dafa yéeme. maanaam mbiri projeté daal bëri na ci. projeté kese la déjà capteurs yi moo lay permettre booy def ni sa loxo yi mu koy gis. y a aucune connexion amoo gant. maanaam danga koy xool def nii. nii nga def yow nii rek nga def moom dina gis sa loxo yi dina détecter loxo sa loxo yi dina capter sa loxo yi verre bi ngay gis noonu ci kanam y a des choses gis nga déjà boo koy configurer dangay jël ah, lunette yi nga def ko nii ngay def nii def nii def nii def nii comme booy configurer sa Face ID. Hmm. ni ngay gisee verre bi noonu tu as l'impression ko verre kese la alors que ci biir verre bi am na ay caméra intégrée il y a des capteurs True Depth intégrés il y de choses qui sont intégrées dedans c'est cocktail de technologie la daal en quelque sorte les capteurs ci suuf fii aussi dafa am ay capteurs yi nga xamante ni objectif bi c'est de voir sa loxo yi di analyser gestes yi ngay def def nii def nii def et puis li première version bi la imaginez ñu dem ay version cinq parce que première version bi ce qui est mooy batterie bi sa poche nga koy def ah. dafa benn fil bu mu àndal léegi da ngay bës batterie bi jël batterie bi nag roof ko sa poche. batterie bi mbaa du gaaw a wàcc. loolooy problème bi mais c' est évolutif. fi mu nekk comme toute technologie. rêver en 3D moom mën naa ne. ah bah oui rêver en 3D mën na. <laughs> maanaam tëdd nelaw takk ko ne dama bëgg a rêver en 3D. waaw Alice au de merveille wala <laughs> Charlie et la chocolaterie. dégg nga loolu. la belle et la bête. <laughs> <laughs> Eh, man ce qui est xam naa ne man moom duma ko teel am parce que ça coûte trois mille cinq cent dollars. ci xaalisu Sénégal. waaw ñaata lay jël ci xaalisu. trois mille cinq cent dollars ça ça avoisine deux millions ah. trois mille cinq cent dollars cinq cent dollars mille cinq cent dollars dollar bu nekk nañ ko def téeméer rek. six cent en moyenne ñaar fukk waaw. trois mille. xoolal ma ñaata la gaaw. cinq mhm. par Hmm. Euh, ñaata la mu nekk deux millions ñaar fukki junni. deux millions cent mille c'est-à-dire quatre kilos. jënd na ñaari kalandoo. ñaari kalando waaw waaw muy daw Dior Yoff benn bi di daw Pikine ak tali bu mag. ñu lay verser dix mille francs par jour. moo tax ma ne la bon lii xaw ma du euh, du duñ ko gaaw am. ah maanaam loolu yëpp pour seetaan ay écran rek. non mais non nag bu dee nag dañ ko teg ci contexte. ki ku xam njëriñam ak koo xamante ni mën na ko utiliser di ko exploiter jar na ko par exemple. tey jii alaaji nag wax dëgg yàlla kaks bi ngay mel ne mongol. jar na euh, dix mille dollars mongol wax dëgg yàlla baal leen ma de. sa jubluwuma ci xas mongol yi. <laughs> ah réew mi daan na xare waxe léegi da ngay foo sax ñu jël ko def ko dëgg indil la ci problème Sénégal wax les les nerfs <laughs> <laughs> bi. c'est pas fait pour di génn di doxanto ak moom ñii koy génn di doxantu ak moom en fait c'est des gens qui sont ridicules. ils sont ridicules ils ne comprennent pas. c'est quoi l'utilité les gens qui sont au volant avec ah. des idiots en fait. ah ah pour a def. dawalal leen garage yi leen. non wéruñu yow kan mooy tàkk ay kat xoolal objectif bi xam nga la téléphone yi ordinateur sa télé mu remplacer loolu yëpp. loolu mooy objectif cest di dire yow soo amee réunion mën nga utiliser casque bi def sa zoom carrément soo bëggee seetaan télé léegi soxlaatul ngay dem naan damay jënd télé cinquante cinq pouces soixante quinze pouse yow yaay xool pouse bu la neex nga configurer ko ci casque bi mu dum soxlaatul jox la pouce boobu jox la pouse boobu soo bëggee am dix écran soo bëggee fi nga toog nii di def nii di xool application bu lay jox résultat match yi ngay am résultat match yi fii en direct di tourner fii di seetaan film def ne gis notification WhatsApp Pape Sidi Fall def ne gis Telegram et cetera comme yow. tu es doo dese loos de bu fekkee notification ngay topp. waaw notification boobu doo dese loos loolu moom <laughs> c'est sûr et certain. c'est ça l'objectif. nee na ma woowee Pape Sidi yow man damay commenter sa sa vidéo yëpp. sa damay ne TikTok Facebook Instagram fépp laa lay. ak fépp laa lay commenter mais yow doo tontu quoi ma ne ko humainement c'est pas possible. humainement pas possible de répondre a tous les commentaires. Alaaji un jour je t'ai posé cette question là <laughs> fii laa toog ma ne la mais attends parce que man dafa am lu may xasee alors que man j'ai très peu d'abonnés. si man j'ai du mal à satisfaire ça bari kii moom nan lay def bay toll nga ne ma non c'est pas et puis tu m'as répondu d'une manière très sincère et directe humainement c'est pas possible. c'est pas possible humainement eh ben j'étais soulagé. non je réponds le maximum possible quand du temps. voilà c'est ça. léegi daal casque bi nañ fexe commandé ci man ak yow. ñu mbaxal teg ko fii ñu mbaxal. ku nekk ah, man danaa joxe cent mille jàppale loo ko ci bés bi. cent mille soo yoree ñaari fan ma yor benn rek. man moom damay deux millions jaay sama ndaamaar gi. ala jëw trésor ngay liggéeyee. foofu la xaalis bi ne. waaw wëral kees gi rek ba gis ko teg tibb ci ñaar. bismillahi min cheytaani rajim noppi naa fi kaf trésor laa dem mais booy waru kajagu ñàkk jana ku jàkk fekk leen fa waa trésor foofu wër naa fa xaalis ba gisu ay fiil laa fa gis ay ah. bureau fi nga ñëw la ay feuilles direction de l'informatique nga ñëw. yéen waa leen ndakate dara. dara nii ay pauvre yu leen ba wow. ok ba pare delloo delloo police centrale ma ni ñii de ku leen wax dara dañ la yóbbu fii ci ci ci ci ci alkaat yi. waaw waaw ñu duma la. wallaay wallaay. mais mais mais kax bii daal wax dëgg yàlla. alaaji nañ ko nañ ko xibaar nit ñi rek. te te xam ne. mais njëriñ kese la nag yàlla am na man day wax dëgg yàlla. xam la ma jox benn exemple bu ndaw par exemple tey agence immobilière. je reste sceptique un peu ah. pourquoi. parce que je me dis mais l'utilité dans tout ça. non ça dépend de comment. on de va l'utilisation qu'on en fait. voilà mais il faut avoir aussi un iPhone pour l'utiliser quoi. oui voilà ah. un Mac léegi supposons ñu dem ba affaire bi développer on n'aura plus besoin les visiter des appartements. boo buggee jël appartement hmm? soxlaatul ngay fay deux mille francs da ngaa demoon mbedd Fass ne da nga fa war a louer appartement nga doo dem visiter ko ma ne la mbedd Fass la ñuy dugal ci application bi nit ki toog Pikine dugg ci appartement bi visiter di ko jege nii di ko sentir waaw mbedd Fass fan la nekkee ci application bi yow waa ji ko defar da cee dem mbedd Fass baax na yow de yow de yëgoolu xew ah xanaa kay balaa koy mën a mooy développé xam nga casque la c'est juste pour visualiser des choses borom agence bi mooy jël ko am xam-xam ni yow mu reproduiral ko appartement bi yëpp en 3D 360 duggal ko ci application nit ñi di ci visité. ki ko ki ko reproduire dina ci def robinet bi yàqu. waaw waaw ak facture courant bañ fa bàyyi nga war ko <laughs> no yow yow yow alaaji demal ba ak yi ngay wax ni ay facture yu ñu fay <laughs> loolu moom fii ku fi loué appartement yàgg ngaa dem ñu ne la gi fi dëkkoon dafa am ay arrière courant yenn saa sax duñ la ko wax da ngay jéeg-jéeg rek facture ba ñëw <laughs> ñu coupé la nga ne lan la ñu ne arrière bonjour Adja Sougou les musées aussi les musées là tu n'auras plus besoin de d'aller visiter ça mën nga ñoo bàyyi aussi Moussa Ba nañ ci waxtaan bi neex na. waaw euh, Abdoulaye. naam du loolu rek la ñu war a waxtaanee de. ay ñu dem ci beneen ba. Euh, am na am na am na bopp euh, moom defe naa da ciy gindi rek ndax booba defe naa moom mooy ci liy wax ci wàllu. l'avenir de la réalité augmentée. waaw loolu nekkul lu compliqué ti ba tey. non c'est pas compliqué xam nga l'avenir de la réalité augmentée mooy li nga xamante ni daf ñuy permettre dootuñu jóge ci suñu kër yi pour dem liggéey ah waaw dootuñu soxla c'est-à-dire tey bu fekkee ne yow mais yow lii garaaw na de l'humain va perdre sa place dans le monde waaw mais c'est inévitable gis nga ràlle boobu ngay ràlle booy génn croisement Cambérène di jël yoonu ville bi waaw parce que benn Ndiaga Ndiaye daf la def queue de poisson. am ku fekk ci rond bi yaa am priorité muy njëkkanteeg yow. loolu dafay safal sa dund gi dara. léegi alaaj yu xuloo yu sew yooyu dafa neex ci dund doomu dama même boo toggee sa kër. yow sédentarisme boobu baaxul de en temps nga génn sédentarisation boobu ça dit c'est inévitable pourquoi je te dis que c'est inévitable actuellement nous sommes huit millions d'habitants. milliards milliards ah, autant pour moi. huit milliards rek romb nañu huit milliards d'habitants. waaw Sénégal man maa ngi fàttaliku ba ñuy nekk cinq millions man te man xale bu ndaw laa nous sommes dix huit millions. Hmm. yaa ngi comprendre. et la population a tendance à doubler hein? la population double superficie dëkk yi doublé wu. déedéet fa mu nekkoon la ne. Hmm. surpopulation mi ngi am fu ne on parle de réchauffement climatique parce que utilisation excessive bi ñuy utiliser suñu oto yeeg. ñun dëkk pauvre yi ñu ngi ci situation utiliser voiture thermique ba léegi waxuma la sax voiture thermique voiture qui pollue d' abord même pour ne pas parler de voiture thermique bu fekkoon voiture thermique buy respecter condition wu climatique nga ne waaw alaaj yaa ngi ay croisement cambre nag yooyu mais alaaj des fois doo dem liggéey énervé wu parce que tu as passé ta vie dans les embouteillages loolu am na sûrement boo jaay e boo xëy fajar gi ah. diggante Mariama Niass waaw pont Sénégal 92 waaw sorti asalem bi waaw Colobane waaw Malick si ak fii ak ci fii bu boo dikkee fekk fi camion yi ñu taxaw. nekk camion ceeb yi gaare ci digg tali bi tey. alaaji waxuma la maa vi nu mu tudd fii. mais je passe par jour deux heures de temps perdu dans les embouteillages. Ben voilà je parle même pas d'argent et d'essence et de pollution que je dans l'atmosphère. moo tax mais lii ma la wax nii. Euh, donc tu rejoins mes propos. deux heures par jour loolu su ma ko amoon de temps de sommeil damay gën a damay gën a damay gën a njaxlaf. productif. waaw tu seras beaucoup plus productif maintenant Covid moo lancé step bu njëkk bi on parlait de télétravail. Mm -hmm. certains parlaient de hybride. travail deux jours télétravail trois jours maintenant dinañ dem ba foo xamante ni on n'aura plus besoin de travailler bu ñu amee ay réunion suñu ay casque la ñuy takk ñu ñëpp ñu toog on représente la salle de réunion à travers le casque je vois Pape Sidi Fall je vois diw je vois diw je vois diw on fait notre réunion. ku nekk sa kër li muy xeeñ moo dugg sa bakkan. sa jabar di jaaget jaaget di la romb tegal la café ngay ndékki te du yàq dara ci affaire bi doo utiliser essence embouteillage du la rey doo polluer benn atmosphère te doo mer parce que yaa ngi toog seen kaw lal sa doom yeeg ñoon di la romb loolu du avantage. maanaam télétravail mën nañ ko def ci télé. waaw mën nañ ko def ci télé mën nga def sa émission nee naa robot mooy présenter journal léegi dëgg la woon intelligence mais c'est que yow moom remplacer la daa mënut a ne. man kay maa gën a nit mënu laa programmer <laughs> amul benn intelligence artificielle boo teg fii cent ans il va donc c'est ça la réalité lii moom wax dëgg yàlla ñaaw na lool ñaaw na naqaru na. non non je avec jusqu'à la dernière énergie et fermeté ces propos de barki borom njaareem lii nag mooy xas nañ. tu peux condamner jusqu'à me fermer mais c'est c'est c'est <laughs> ah. mais. maanaam mën nañoo yegg si jamono boo xam ne ku nekk sa kër ngay toog di liggéey waa marchand ambulant yi nag nu ñu def booba. ñoom dañuy continuer di liggéey. waa ku ñuy jaay. moom laa la bëgg wax c'est-à-dire il faut se réinventer il faut se Canada yow dem nga fa da ngaa gis marchand ambulant foofu. déedéet. ah jeex na. foofu de gis naa da nga bitik. pharmacie boo xam ne barki borom si siam bii da koy jaay comme pas possible. mais mi ngi noonu mais da ngay dem hôtel yow doo gis réceptionniste. doo gis personnel de hôtel yow boo defee sa booking boo yeggee cest à boo defee booking ba confirmé ba fay dañ lay jox code bi boo yeggee ci bunt ba ngay dugal code bi ubbi self kii sa bopp self book sa bopp ñu jox la code booy ubbi sa néeg yéen kese yéen ay nekk ci hôtel bi amul dara y rien am na. waa léegi booy naan café xëpp ko ci ci kii bi ku koy nettoyé. sa yow nga nettoyé ko sa bopp. lal bi bu jaxasoo ku koy lalaat. nga defar ko. c'est ça foofu lañ jëm am na tey boo demee au Japon am na eh, hôtel boo xam ne hôtel high tech la y a que des robots qui sont dans l'hôtel nekk hôtel nekkal fa sa bopp di di di def liggéeyu technicien de surface adduna bi moo toll foofu faal njega yaara loolu mënoo ci dara man de hôtel bi ma nekkoon damaa ñëw ñu jox ma carte ne ma boo amul carte yi doo yéeg ci ascenseur bi ah waaw doo dugg sa néeg waaw carte RFID yi la mënoo ci dara léegi alaaj <laughs> nañ wax ci réseaux sociaux yi balaa ñu ñoo dakk réalité virtuelle augmentée boobu moom. nanu may rek. mais loolu alaaji mënuñ mënuñ. yegg seegul léegi. Sénégal peut-être mais. Sénégal réalité normal rek yegg seegu fi. ah lu ñu dund nii la la. di ñu di. <laughs> c'est imaginaire. <laughs> wayaayooy. he. mais alaaji loolu de la waaja doon wax naan aram tara kayfa faala rabbuk technologie lépp am na frontière ba mu des technologie. lépp am na frontière ba mu des technologie. xam nga kon mais réew mu ne. alaaji dafa am ay mbere mbese yu ko. xam la moo tax wax la ko. gis nga réew mi munoo muusa ka waane ba seer du fi am. alaaji borom puus puus yi di xos sa peinture ci mën dara. ànd naa réew mi di ànd ak ambiance. akama ci ànd. ànd naa ci. ñu ñu ñu waa léegi bongo maa ni réalité ku nekk bu toogee këram di liggéey nu nu nu nu bongo wee. alaaji sa ànd yow sa kurus nii di. waaw sama course laa yor waaw. waaw waaw S24 bi dafa génn une semaine après nga jot ci. Ah, waaw. ana frontière. est-ce que am na frontière. alaaji lii de parce que man nag waa Samsung ay xarit lan moo tax. de ba jeex nag kon amul de frontière. mais man li ma dal dalu ñëpp. mais tu es sénégalais. dëkk parcelle. déedéet tëb nga de. ah Ndiarème ak Kaolack Ndiarème ak Kaolack mais parcelle eh. la bëgg wax dëkk. waxu <laughs> la technologie n'a pas de frontière. tu conduis quelle voiture tu dis ta voiture hey Mercedes elle te répond. waaw et eh, du ma ko saa yi ma ko waxee kay mu ne ma oui que puis-je pour vous. mais na a pas de ana frontière bi est-ce que yaa ngi ci charrette yi ba léegi est-ce que voiture la yóbbu. mais par exemple. Touba am na seen charrette mbaam yoo xam ne dañ ko dan ko moderniser loolu aussi ci technologie bi la bokk. ban xeetu modernisation la. rétroviseur lañ teg ci digg bi ci peq yooyu di dend ak ginnaaw pono bi. ñu def fa ay baaful. gars yi bu ñu duggee dañuy noos. di déglu musique. tu t'adaptes sinon tu disparais. rétroviseur la waa ji def naan eh euh, grand yow mi sol xaftaan bu la boobu ñëwal paas. bu tourné sax di xool day dawal. di xool rétroviseur bi <laughs> mais je me dis qu'on est en train de nous déshumaniser. pourquoi c'est deuxième non c'est pas de la deuxième <coughs> deuxième. Abdoulaye li ngay wax bu yegsee ci réew mi. pourquoi deuxième ñun Louga sax. yow su borom tool yi nit dootu fa ne. Ah, ay ay ay ay ay ay programme intelligence artificielle ñoo ko nar a def. waa léegi tool. léegi bureau yi waa léegi nit ki tabax immeuble am ba pare loué ko loué ko loué ko sa xarit de waa waa léegi kooku moom moom bu bu bu kenn liggéeyu ñu jox ko caabi ji moom fu muy fayee euh, fu muy. fu muy non immeuble ala kulli haal nit ñi dinañ ko occupé. bu ko ay société occupé nit ñi occupé occupé ko dëkk fa. dëgg la. yaa ngi may comprendre loolu c'est c'est inévitable tool bi ngay wax sànq tool ay jamono da ngay gis sa maam am deux hectares sa maam day am problème mu exploiter cinq cent mètres carrés day am deux hectares am problème exploiter cinq cent mètres parce que humainement. parlant munul yor ñaari satala yu ngande yooyu di roose di roose wa là où un drone te fait dix hectares en une demi-journée ak ay capteurs yu détecté humidité bi boo amee arrosoir automatique mu koy detecté deuxième chose lay wax capteur yu booy di defar fii ak seen Arduino yeeg Raspberry Pi yooyu noonu booy yi ndaw yi ñëw fii ci booy yi ndaw yi nga xam da koy sàmp ci lii ma la wax ni waaw samp ci suuf si. am na jay na ba ñëwoon na fi. créé na loolu amatul ay guta guta yu kenn xamul. mais xam nga loolu man wax naa ko jay ba nee naa ko xam nga lii xelaat bi rafet na. waaw te faisabilité bi it mën naa ne. mën naa ne waaye da ngay tànn Sénégal ne sur euh, quarante mille villages yi nekk ci réew mi. Mhm. daanaka xaaj bi amuñ courant. waaw ndox loo courant abuju ko. waaw dañuy gasub teen. waa jukki la ñuy def ba fi mu nekk nii. waaw fii Fuuta. Mm-hmm. wala Podor. Mm-hmm. bis bu jot ma jot plainte bu may wax ne ma. voilà dëkk ñun dañoo am problème mu ndox. da ngay gis ñu takk sareet def ci ay butéeli vingt litres yi wala ay xandi mm-hmm. dem rooti fu sori te bu ñuy root fa ñuy rootee dañuy tànk ndax seen château d'eau yi day yàqu alaaj voilà dëkk Podor laa dëkk loolu kay dama lay wax nii léegi alaaj loolu nag day ñëw day indi benn transition politique da lay won ne suñu nguur yi soit dañoo xamul seen liggéey wala dañ ko buggut pour régler nee ndax casque boo ko takkee mën na laa demal manifestation comme ci leen toll <laughs> ana manifestation virtuelle après policiers yi fekk la ci biir kaski bi rek <laughs> di la tirer bal bu nekkaat z comme loolu ngeen bëgg alaaj gis nga li nga wax sànq yëpp ci problématique xam nga régler problème Sénégal yomb na et nos dirigeants la qui passent leur temps à couper internet et autres énergie bi ñuy def ci couper internet énergie bi ñuy def ci représailles xaalis bi ñuy def ci interdit des manifestations et tout ça là buñ ko jëloon dem ci village yi équipe leen ne serait que de quinze pour cent de li ñu soxla ça dina régler énormément de choses ñun yàlla daf ñoo may suuf à perte de vue il y a trop de vide au Sénégal yu accidenté wul. suuf yu plateau tàlli ñeret exploitable arable comme on dit en langage suy mhm. on a waaw d'accord d'accord d'accord da ngaa woor fi mu ne nii lu waay wax hours vingt quatre heures on a combien de kilomètres de côte on a du vent on a tout ce qu'il faut pour se développer Japon dafa nekk ci zone bi nga xamante ni quatre plaques tectoniques moo fa nekk dëkk bu nga xam ne dafay instable à tout moment malgré ça ils ont réussi à se développer ñun amuñ benn catastrophe naturelle on a l'énergie solaire on a tout mais amul leen lu ñu ci bëgg a yàlla indi na pétrole et gaz c'est quoi le problème on a des dirigeants qui sont paresseux qui ne veulent pas travailler. xam nga luy problème bi. keroog ñaari booy am 14 ans lañ fi dalal ñu taxaw di wax lan mooy doxal dëkk bi kon kan moo xamul. ñëpp xam nañ ko mais xam nga lan mooy problème séddale bukki waaw bukki dañ ko tegal ndawal mhm. rabi àll yëpp wër ko mu war a séddale day jël ne bii bukki la waaw bii njuur waaw bii sàmba mhm. bii man mii mhm. bii kii séddale bii kii séddale cëram cër baa ngoog moom eh. cëram am na cër moom di ko def ba ñeenti yoon juróom-ñaari di ko def ba ndawal la des benn mu ne xanaa bii ma jël ko rek ndax ak li ma doon séddale <laughs> Abdoulaye kon ñu denc ñoom Mark Zuckerberg. waaw boobu tamit c'est ak ki créé ñoom TikTok. waaw àllarba jàmm incha allah ñu wax ñooñu lan moo tax bu ñu leen di laaj ñuy tiit ak ragal. Mm-hmm. ndax daa am seen application yooyu di TikTok Facebook Instagram. lu mu làq Twitter on on dit plus Twitter à ce qui on dit X. Mm-hmm. Ah, man de X bu ma ko bindee Google ñaari nit ñu def yaramu neen laay gis. même man mii ay waay X waay <laughs> ziar naa la. Eh, eh, eh, euh, ay dara maa ngi lay ziar bu baax Guèye ba Basik Bàcc si di mbuub euh, lamp Zikar maa ngi nuyu man itam docteur Diop docteur Moussa Diop fidèle téléspectateur. macha allah waaw grand pape Guèye moom moo war a jox waa 2STV ci seen émission bi ñuy def mooy encore plus. ak kundul borom gato yi tey dama lay toppandoo. voilà euh, pape Guèye moom moo war a jox waa 2S seen décor plateau émission encore plus bi ñu war a def ci. Euh, koor gi. Hmm. mooy grand bi ma demoon ci usine am. génnee salon yi. waaw moo ñu war a décorer suñu émission boobu falaa jëm ngir xooli meublier. ban émission ah. encore plus mooy bi am durant le Ramadan. xanaa boobu bi année bi dinaa ci bokk. dangay bokk. waaw kay da ngay ñëw on va parler de Bakar Mamadou indilal mayo Fall Ndiaga bi. barki yàlla Mamadou sama mayo. waaw virtuel avec Abdoulaye. Bakar virtuel